union la parce que affaire bi ku ko moo mooy Doudou Niang Diop sama xarit la ba nga koy gërëm di ko sant parce que jàmbaar la gaynde la mais amul ko taxaw mais président la République la ñu taxaw taxaw ko vraiment euh, mu taxawaay bu rafet mais ñun gisuñu leen ministère du tourisme ñun waaw ñun waaw gis gisuñu leen maanaam ñun xamuñu ku nekk tourisme ñun xamuñu on n'a pas c'est pas une affaire d'homme ou de personne ñun dañu ne ni ñuy gérer tourisme bi tourisme bi neexuñu du leen bàyyi ñu ku ne di yàq yàq bi yàgg na bari na métti na il faut que ça arrête bayuñ ci dara parce que gënuñu bëgg réew mi ëpp ñu xam-xam waaw 1960 ba léegi ñu fi ñu fi nekk defuñu fi dara lu baax nañ joxe lenge yi bu ñu yàq réew mi. loolu ñaan rek mooy euh, ñu xamal sénégalais yi ne ñun on est des nationaux lu ñu bëgg mooy tourisme bi ni ñu ko doon doxalee ñu changé ko mit bi Senghor ko fi indi ci xalaat bu rafet. ba mu ko fi taxawalee aussi rafetoon na mais après diñ ko yore yore maanaam yor bi yor bi yor bi rafetul dañ ko caaxaane def ko fowukaay ay 4 wala 5 personnes ñoo ci profité di jël xaalis def seen poche Sénégalais yi duñ ci am dara dañu bëggoon léegi Sénégalais di ci am état bi di ci am li ñu bëggoon daal di demande li ñu demande chef de l'état chef du ministère du jox ko office national de l'industrie hôtelière ñu créé ay office régionaux ñoo xam ne aussi seen la la xew la xew seen i seen gox ñoo ko yoral seen bopp euh, ñu jël ministère affaires étrangères doolu ko ci parce que CST ci décret bi ma gis man décret 636 2003 donc Ousmane Masseck Ndiaye yàlla ko yàlla yem ci xar ko àggee moo ko moo ko signé moo ko Idrissa Seck c' est un instrument extraordinaire mais malheureusement dugaluñ ci biir affaires étrangères kooku defe naa erreur la doo def doo ci boole affaire étrangère loolu defe naa erreur bu xaw a doy war la donc ñu dellu si aussi ci ASPT ñun gis nañu njëriñam nañ ko supprimer jox ko si CAF si CAF bi société société d' investissement à capital variable